asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum àdduna asalaamaaleykum cher internet de la Africa 9 TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar amaan mbégte jàkkaarloo ak yéen seen émission bi nga xamante ne moom mooy Echo Africa mu seen matinal bi nga xamante ne moom leen Africa 9 indil saa su nekk rek ñuy waxtaanee actualité waaye tamit tolluwaayu réew mi. Euh, saa su nekk itam eh, eh, Biola solution di nga dañu ci eh, gunge muy sponsor boo xamante ne moom mooy tax émission bi ngeen koy mën a am ñu ciy féggoo rek saa su nekk ak ki nga xamante ne moom mooy international DJ Alpha DJ Alpha ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay di nuyu mbokku internetu Africa 9 TV di leen ne dalee jàmm seen émission Eco Africa nee naa la chaque fois heure baax bi su jotee rek à chaque fois heure bu baax bi nee naa la dañuy pëtaxal sa juróom-fati galeen émission bi daal di door si lu neex si lu spécial. muy nuyu walla suñu invité bi di Petit Général. ayca Petit Général ñu bàyyi ko mu nuyoog euh, ay fan sama ak ñi nga xamante ne ñu ngi koy seetaan. waaw on dirait bismillah ñu sant yàlla julli seen di sant suñu ñaari waajur di leen di sant ñëpp di leen sant yéen soxna Diarra Alpha di bëggee ñëpp suñu cameraman di ko bëggee bu baax bëggee waa Malika yëpp daal waa benn Barack Toan Paul Kër Massar bàyyi ñu kenn suñu mbokk wàll wàll yëpp ñu ngi leen di bëggee wax waa Touba Gaz. Mm-hmm. di leen bëggee bu baax. Aïcha mbokk yi ginnaaw bi leen nuyoo rek comme ni ñu koy defee saa su nekk rek dañ koy dox ak actualité li ci gën a benn ponk lay doon ñu fës yéene ko waxtaane muy rek li nga xamante ne moom mooy signal yi nga xamante ne coupé nañ ko fële ca Walfadjri boobaak léegi nag mu def polémique mu mel ni rek boobaak léegi tam gis nañ sax ñi nga xamante ne ñoom ñooy population sénégalaise ñu génn di nakarlu mbir mu ni mel waral ki nga xamante ne sax moom mooy DG Walfadjri di Cheikh Niass ci njiitam rek mu daal di organiser ab conférence de presse indi ci ay leeral bokk na ci ponk yi mu fa yëkkati mooy eh, DJ Alpha li nga xamante ne rek signal Walfadjri nee na bi mooy ñetteelu yoon li nga xamante ne sax moom mooy ñuy am ay jafe-jafe ci lu ci mel ni rek saa su nekk ay événement su amee bokk na ci 2021 waaye itam eh, mars bi passé nii rek ak eh, bi nga xamante ne def nañ ko récemment mais la troisième fois bi muy seen signal yi ñuy dagg loolu moom lu ma wax moom mooy kenn rafetlu ko. Mm-hmm. parce que Walf loolu moom dañ koo yàgg xoxatal parce que depuis jamono suñu maam.

Aïcha Alpha loolee waral Cheikh Niass euh, ginnaaw bi nga xamante ne yëkkati na ay kàddu ci conférence de presse bi mu daal di xam le ne que euh, dinañ. topp li nga xamante ne moom mooy métital wala xot-xotal yi nga xamante ne ñu leen koy teg laa ginnaaw itam mu ñëw ci li nga xamante ne moom mooy sax jafe-jafe yi nga xamante ne Walf da koy dund ci eh, tëj bi nga xamante ne eh, dagg nañ ko signal yi doore rek le premier juin bi passé eh, wax tamit ne que bi war naa doon un mois boo xamante ne da koy durer muy le premier juillet kon lañ leen war a delloowaat seen signal loolu noonu jafe yi nga xamante ne war na koo mën a indi ci entreprise bu toll ne Walfadjri ak li nga xamante ne moom lay dugalaat ci biir askan wi. jafe-jafe boobu noonu moom mun na koo jural lu bari parce que mun naa ne faay doon na handicap parce que tey jii nii li ngay dugal si serveur ak li ngay dugal si sponsor tey jii télé bi su doxul ñooñu ñëpp dañuy peser les bras. kon mhm. donc dañuy toog seen coin ba. keroog ñuy tijji Walfadjri te loolu noonu du yoon. Mhm. ñu koy def comme genre entreprise bu mel ni Walfadjri du télé bu ndaw télé bu mag mu mhm. melni ne itam ci kaw loolu sax wax ne eh, bu li dakul amana ñi nga xamantene ne ña nga fa di liggéey wara jot seen ay salaire mën na metti ci seen côté loolee waral sax ñu gis ab kañat bu xamantene ne jotoon nañ ko lancer ni ki démb ba sax sénégalais it macha allah ci wane seen bop bu baaxa baaxa ba ñu am information que ne récolté nañ lu tollu ci 60 millions kon wala fa jëre askan wi délo nañ leen jukkal délo nañ leen jukkal ké parce que tamit yombul nga gis ñu

Euh, Cheikh Sarr nekk animateur fële ca Zik FM moom it ñu gis ko mu wane mbégte mi nga xamante ne euh, fësal na ko ci ay euh, compte réseaux sociaux am waaye daal di xam ne rek Walfadjri université la boo xamante ne mérito na lu raw loolu. waaye itam ci biir loolu mu mel ne itam kon dañoo suspendre compte ya nga xamante ne ñoo doon fournir xaalis boobu pour indil ndimbal Walfadjri mu mel ne itam du jut nañ ci baaraamu ma ñi nga xamante ne ñoom ñooy nguur gi. Mm-hmm. waaw waaw parce que maa ngi gis benn sortie sa si réseaux sociaux yi parce que loolu tamit man tamit ba tey du ma ko rafetlu dama koy ñaawlu ba tey parce que wol Walfadjri laa voix des san voix la mun naa ne peuple bi la fi nekkal mm. kon donc tey su demee ba lii nii nguur di ko def kon nga xam ne arrangé wu nguur c'est pour cela que tëj ko mm-hmm. kon donc nag mënoon nañ gérer affaire yi si beneen anam mais pas lii tey soo ko tëjee tey ñuy liggéey si entreprise bi mooy da leen di fàttal tur yu bëri yi nga xamante ni bii nii arrangé kon donc su ma sañoon ñu teggil leen signal bi ñu mën a continuer seen i activité te xam ni peuple bi ñoo ngi toog di a Walfadjri mhm. mu mel ne itam sax ginnaaw loolu moom PDG Walfadjri Cheikh si itam wax na ci li nga xamante ne sax moom mooy procès Ousmane Sonko Adji Sarr dikkaat na ci waaye ma daal di xam ne rek ne dafa mel ne nguur gi euh, xeex lañuy def ak ñoom ba tax na ñoom xeex boobu nga xamante dañ leen siiwoo wuy si nañ leen ci euh, maanaam diggante fajiri ak li nga xamante gouvernement bi dootul neex waaye tam mu waral ki nga xamante moom kilifaam di Ahmed Khalifa Niass ñëpp xam ko mu nekk mag ci ki nga xam ne Lamine mhm. mu def euh, ben appel boo xam ne sax appel direct la def ci conférence de presse ba mhm. daal di wax rek ne Walfadjri liñ koy def du yoon te moom bis ni ki dina taxaw taxawaayu baay mhm. waaye tam mu daal di joxe rek diireb ñeenti fan wax ne bu ñu leen delloowul seen signal dina génne information yoo xam ne mën naa yëngal réew mhm. loo ñu wax ci loolu te lu may wax si loolu moom su ma sañoon loolu yëpp ñu teg ko si suuf rek leen lële si mhm. njëkk ak teraanga quoi parce que lu ñu jotee génn rek mhm. dafa jéggi dayoo te doy na waar trop parce que soo xoolee manifestation bu ñu mujjee génnee fii nii fan yi mun naa ne dëkk bi tàngoor na loolu te aussi tamit bagage yu bëri yàqu na fi kon donc su ma sa yoon daal ñu régler ko waxtaanu biir néeg ba telle sorte que di dinañ mën a trouver solution bañ delloo Walfadjri li nga xamante ni moom lañ moomee mu di seen signal. Mhm. ayca mbër loo ñuy wax ci loolu am nga ci kàddu. Ah. en tant que citoyen wala yow doo seetaan Walfadjri. non man moom li ma di siiwal si loolu moom bëriwul sax. Mhm. siiwal mais mooy loolu mais ñaan yàlla Sénégal daal yàlla fi jàmm yàgg. Mhm. mooy loolu moom la moom lañ gën bëgguma si wax daal dara daal di juum. mais ñu ngi ñaan daal Sénégal daal yàlla fi jàmm yàgg. mooy loolu ku nekk dellu say activité yi am mooy loolu. ayca mbokk yi mi ngi noonu kon looloo gënoon fës ci actualité bi nga xamante ne moom moo ñeel signal yi nga xamante ne coupé nañ ko ca. Walfadjri waaye itam dinañ wax tamit ci libération bër ki nga xamante ne moom mooy Pape Sarr Pape ñëpp xam ko mu nekk koo xamante ne nee naa la kenn dootu ko présenté si làmb mu amoon jafe-jafe ak yoon ay bis yële weesu ñu gisoon euh, champion yu bëri defoon ay sorti sax doon ñaan euh, ñu teggi ko loxo yàlla def mu ñibbisiwaat ci ay mbokkam loo koy wax. waaw Pape Sarr mooy loolu moom suñu gannaaw lañ koy ñaanal jàmm rek. Mm-hmm. mooy loolu gaa suñu ko toppee moom gaan xam nga Sénégal moom gaan boo xee dëgg gaan mooy loolu dëgg neexul. Mm-hmm. te si lu ma dëgg gars yi wax wax ñëpp seen sotti ñoom Balla Gaye ñëpp luñ génn lu wax bu si dellu gannaaw dëgg la. Mm-hmm. waaw te dëgg moom gaan mooy yàgg ay mm-hmm. ci Alpha mu mel ni tey Sénégal toll na foo xamante ne ñu bëri dañuy gis dëgg mais duñu ko ñemeeti wax ñeen ñi gis ko mii dañ koy ragal a wax. mu mm-hmm. ci mel ni tey euh, citoyen benn citoyen bu jug di xeexal euh, suñu kilifa diine yi wala di euh, bañ ko laal suñu diine tey ñu tëj ko ci kaso. parce que soo xoolee léegi Sénégal dem nañ ba ñun suñu jëmu bopp ñenn yi dañoo nopp hmm. parce que yaakaar nga ni yow lu dul ay caaxaan rek du nen te hmm. alors que ni dëgg rek a wóor hmm. dëgg dalay topp ba sa biir bàmmeel fii réew mi ñun ñoo ko bokk tey kilifa diine yi ñoo ñu fi nekkal kilifa diine yi tey gannaaw yàlla dëkk bi su amee jàmm ñoom la parce que tey jii nii même président de la république sax su defee ay kilifa diine bi su ko woowee day bàyyi. Mm-hmm. kon nag donc nañ joxante cër. te kilifa diine bu fi nekk nañ ko respecté comme suñuy ñaari waajur yu ñu bàyyi sa kër ga parce que respect mooy lépp. Mm-hmm. gis nga yaru ak teggin lu mu la mayul du la ko xañ. Mm-hmm. kon donc nag nañ bàyyi xel bu baax a baax suñuy parole ak suñuy joxale ayca mi ngi noonu kon mbokk yéen ko déggandoo ñuy woy rek di ñaanal suñu tonton Pape Sarr jàmm di ñaan tamit yàlla bu mu delloo ci ci lu ni mel yàlla na fi yem waaye mbër rek ñu bàyyi la nga sa ganu tey ki nga xamante ne ñëw na seet suñu muy petit général mu nekk mbër boo xam ne macha allah xale la waaye mi ngi ci yoonam mu war a bëri rek ak ki nga xamante ne moom mooy Ndiaga Euro loolu euh, jàmbaar ñu loolu euh, Ibulaay production moom moo koy amal fële ci arène nationale loolu di le 18 juin incha mu nekk ci wàccaay ñu bàyyi la rek nga dalal ko waxtaan moom su ko defee rek ñu gën xam kan mooy petit général. ayca mu ngi noonu soxna Diarra kon moo ko waxee rek ak petit général nee naa la mbër bu ndaw la bi nga xamante ne moo ngi si yoonam di béy waaram parce que ku nekk xam na ni lu mu mënee si wàllum làmb waaye fu may ñëwee sama question bu njëkk mooy ñu bëggoon xam petit général kañ ko dugg si làmb ak lan moo la si làmb. waaw làmb moom dañoo judd rek bëgg làmb maa ko ñu bëre ñu juddoo ba léegi ñuy bëri su ma am sama photo yoo xam ne ko wonoon sax danaan déedéet mhm. ñu juddoo ba léegi dañ ko yàgg fooy nekk suñu nekk suñu deret ñu bëgg ko mhm. te suñu ko bëgg loolu mooy loolu bu heure kon mun naa am na ñoo xam ne tey jii ñoom jël si làmb foofu mhm. te tey ñu ngi fee toog man man maa ngi doxal ba léegi kon ma ko gëm moom nga bëgg de tey macha allah mais est-ce nga ñëw wax si sa carrière waaw sama carrière làmb sama jaar jaar waaw jaar jaar moom métti na làmb képp xam làmb mais moy lolu lo bëgg moom gaan day merci yow wa to lu ndoro neex mo gaan du gaaw da ngay dégg làmb dal baye sama way mo moy lolu mo ngi ni rek ñu koy dund mo lolu ak sama gaay ci si ma la Pa Demba ñoom maam si yàq xam nga dund làmb daal dafa métti saa wax lepp sax waaw aco mooy noonu gis nañ ne ba tay am nga lamb boy préparé ya ki nga xamanteni mo moo di njaga euro ñu bëggoon xam waccay yi foo si waccay wàccaay wàccaay pare nañ bu yàgg pare nañ. Mm-hmm. buñ paree moom du tey yàlla yooyu lu jot yàlla fi yem rek ba laam jëm. ba le 18 incha allah dañuy xam ne kon pare nañ wala pare wuñu. nekk mm-hmm. wala moom du dossier mooy loolu dañuy ñëw rek la la ko suuf si mooy loolu. ayca général balaa ñuy gën a xuus mu mel ne euh, sànq am na question boo xamante ne réponse bi des na dañoo bëgg a xam palmarès petit général fan la jaar kan ak kan la daan. Mm-hmm. parce que tey am na ñoo xam ne ñi ngi seetaan mais xamuñu kan mooy petit général ak parcours petit général. waaw plus général ndaw la rek mooy loolu waaw ma ne yebal ko mm-hmm. mooy loolu sama deuxième sama premier combat dama kaa ñàkk. Mm-hmm. Mm-hmm. ma daan sama premier bu Kër Massar daan ko. sama troisième combat si laa bëree Boy Ndiaye bu Dalifort. moom tamit daan ko. mooy loolu. kon am nga deux victoires ak benn défaite. ak benn défaite nga dëgmal Europe. maa war a dem si njëga Europe xam nga xale bi nga jël. waaw yow xale bi mooy loolu ko xam nga xale parcelle bi. waaw xale parcelle bi dara day xaar. xale bi dafa mbooloo koy topp de. mbër gox la de. ñoo ko gën a doon mbooloo foofu. Mm-hmm. waaw waa Malika bu ñu jógee yëmbal jóg Kër Massar waalo waalo yëpp jóg waa Géejawaay waa Gàddaay. Mm-hmm. waa Ñaax waaw dina xam ne kon moom mooy loolu. mais la ñu mën a xaarandi si combat bi. ñu ne xale lañ. wala ñoo bëre combat yoo xamante ni nit ñi dañuy xool gars ñu jéem ndax ay xale lañ. te xale bu ñëwee foo wane ne xale la te Ndiago moom mën naa faara moom bis la mu ngay wax. Ndiago war ngay wax de. waaw Ndiago war a mu ngay wax làmb ji du def dara. Hmm. lépp maa koy def lépp lu fay neex. ah mais tey tey Ndiago xam nañ ne mbër la boo xamante ne mënee na mënee na wax. mune na wax ci ci ci signature waaye bu ñëwee day dëggal bopam te sétu nañ ne bari ndaw ñu ci bari nak bu ñuy signer contrat ku nekk day wax mais bu ñëwé ci gëw ba li ñuy wax duñ ko jëfé wa loolu mom man képp ko xam Petit Zé mom moom xam na ko sax démb rek mu ngi koy confirmé mm-hmm. man duma dellu ginnaaw mm-hmm. mooy loolu damay bëré man lu mom lepp lay joxé joxe lamb amu dama rek ah, amu lu ma si ragal ma sumee dama tek sama ngëm mm. bu bés ba nekk mm-hmm. dama fay jële insha allah rek tamater yi fay kontaan incha petit général tur bi général bu mag nga tuddee sa bopp wala fu tur bi jóge waaw général bu mag laa tuddee sama bopp général sa sama mm-hmm. idol moom borom bu baax la ko waa xam nga. da ciy jàpp bu baax a baax. général ñu koy nuyu ñu koy nuyu doom yaay armé la. waaye euh, petit général combat nga jël Malika ngay jóge jubali ji arène nationale te ku wax mbër bu ndaw xam ne metti na. Mm-hmm. Euh, tey jii naka ngay naka ngay wajale sa bop financièrement ndax dafa am ño xam dañ lay jappalé ndax supporter yi jëndal seen bop billet ndax autorité yi nga xamantene ñi ngi bir Malika ñi ngi ciy tek loxo parce que tay bo xasse nek mbeur rek wala nga wala ñu lay tuddu ci dëkk rek yow dara nga fa parce que fofu ngay représenter tay yow tay so juggé da nga Malika kon yow Malika ngay représenter ndax wa Malika ñi ngi ciy def dara. wa dëgg la suma juggé Malika yëpp jëm loolu ko. mais autorité yi tamit des na see jàpp quoi tey tàllaama doon na loo xam dafa métti ñoo ko mën kase tey su ma su ma daanoo tey dañ naan mbëru Malika su ma jógee di bëri war na si ñëpp ma jàpp mais bu sama staff booy may àndal booy nga xam ne fédération la ñuy jaay def si man di ma jox xam nga mooy loolu kon autorité yi war nañoo ñëw jàpp si combat bu baax a baax a baax mm-hmm. mooy loolu man ak booy ñoo koy préparé ku si mel ne Paa Dem ak Maam Cheikh ñoom Ousse ñoom Papis alu Aliou Naar booy ndaw yooyu daal xew mu leen. ñoo sama autorité bu baax. pour l'instant mais Malika moom gaañ war na see jàpp bu baax. Malika war nañ cee jàpp comme ni nga ko waxee mais ñu bëri tey dañuy toog di ne su ma amee combat ñi nga xamante ne ñooy autorité yi duñ ci teg loxo. parce que loolu du yow rek bëri na mbër yu bëri yu nekk ci ay gox da ngay dem seeti len même chose lañ lay wax mais ndax yow mbër mi tey mën ngaa nekk ci kër di ci ci koñ ngay évoluer mais peut-être sa. sa tur lu egg ci ñoom mais ndax yow tey di nga di nga sol sa dàll nga dem seeti ji ñi nga xamante ne ñoom nga war a seeti euh, ba xam ñoom comme yow soo defee le premier pas ñoom dina am dina am changement wala. waaw moom sama ñu ngi dox lii daal si lii man laa jëb laa gën a miin. am laa jëb laa jëb waaw. dem naa fa ñaari yoon waaw moom la mën na si jàpp laa jëb. waaw di ko bu baax bu baax. Mhm. Mhm. mooy loolu mais yeneen gars moom pour nga gis leen sax problème la. Mhm. mooy loolu moo tax mujjee obligé. kii nu mu tudd am na am na Pataala Kajaga am na keneen ku baax ku baax ci Malika. tukku pël bi Demba je pense Demba ka xaw ma pël bi am na am na ku nekk Malika euh, damaa fàtte turam bi mais moom tamit demal nga seeti ko. Hmm. Euh, demal nga seeti ko mi ngi jàppale waa Malika bu baax a baax a hmm. baax. te euh, xëy na soo demee ba jëflante ak moom wala ba mu gën a ban gën laa xam tamit. Hmm. yaakaar naa ne di ci gis sa bopp bu baax a baax a baax. mooy loolu bu si mënee jàpp moom dina baax ndax làmb dafa laaj jàppale ko waaw mbër bu ndaw jàppale mbër bu ndaw moom jàppale laaj ndax làmb ñëpp xam nañu gaañu dañuy def lu ñu war entraîné moo ñu war ak teel a tëdd ak lu làmb laaj lu si des nag moom gaañu ñu mën a jàppale waaw ñun moom ku ñu jàppale ñu dem Malika moom mooy loolu ay ñëw fi gëm nañ seen bopp ay ñoom ku si a ne Bouba ñoom Aziz Baboy général Malika xam nga ay champion dafa nekk fii Malika moo la ku ñu jàppale dañuy dem waaw fii nag moom leen ko samay problème jàppale leen desee am ma nekk mën naa xam mbëri magi sax dañoo problème jàppale jàppale wax la mbëri mbëri ndaw yi. ayca mais naka nga jàngatee bi ak coow bi nga hmm. xamante ya. ni bi amon na fi par rapport ak nervi yi. ak nervi yi. waaw loolu moom dama si sawar wax sax. mooy loolu waaw na jeunesse bi tey mënuñu ñëw topp di xeex ñun mbëri ñu dem naan ay nervi la loolu rafetul sax. Hmm. loolu rafetlu moo ko waaw hmm. man e Sénégal moo nekk dëkk boo xam boo xee dëgg mer. am ñoo xam ne ñu ngi wax mbëri nerf yi mais mbëri nekkul mbëri yëpp la nag de. Mhm. am ñoo xam ne dañoo entraîné nekk si salle yi entraîné dafa toll na neex rek ñëw yi amuñu liggéey amuñu xëy amuñu mhm. mais man côté boobu noonu lay ñëwee sax parce que ñenn mhm. ñenn ñi si mbëri pourquoi pas ñu dem di dooni nerf ñu lay fay ay quinze mille francs ngay yor ay gourdin di ko dóor ñi nga xamante ni say rakk lañ soit dix ans wala soit làmb bu ñu nekk dañ see gisul seen bopp ba tax na ñuy jaay seen ngor ngir 15000 francs ngir rey doomu aadama wala di leen xoxatal. waaw xëy na tamit loolu mun naa nekk mën na see bañ a gis seen bopp. ba tax na ñu dem di def ñu loolu. mais man mais man je làmb lu mu lay fay moo ëpp 15000 francs. moom gaan loo xam bu ñu ko fayee semaine bi nii mooy loolu mu jeex. Mhm. kon loolu toppatoo du ma leen see rey. Mhm. te booy ma xam ne nervi yi si jàpp moom yaa ma gën a xam. mais booy tamit dinañ wax ne rek nervi yi du yëpp. Mm-hmm. waaw am na am na mbir yoo xam tey jii nii. Mm-hmm. am na mbir yoo xam ne tey jii nii bëri na ba xam ne tey mënuñu xam si dara si bu ñu yàq dërëm mbëri. dëgg la damay dégg. waaw nañu jàppale mooy loolu quoi. mbër yi ana ban message ngay lancé si mbër yooyu nga xam. nga damay damay toog sax gaañ di wax si mbër damay damay mujj am complexe. dëgg di leen expliquer affaire nu mu demee. waaw ñu ngi yàq dara bëri quoi nañ bàyyi loolu loolu rafetlu ma ko mais Alpha ñu leeral que ne tamit du mbëri du du ñu am ponkal ñëpp tamit ay mbër gisee bu am benn gabarit bi rek. donte du mbër sax dañuy ne mbër la. alors que ñiy def ay ñaawteef comme ni nga ko waxee ñu ay mbër alors que duñu ay mhm. ay mbër la am ñoo xam tey saal yi ñu fekk ñu entraîné ko punkal boo leen gisee ñaar xool kee te du mbër mhm. mooy loolu dañu entraîné pour xam nga rek pour plaisir ak affaire yooyu xam naa fa xale yi jigéen ak gars yi wala. waaw dëgg jantal mais bu ñàkk dërëm bëri quoi bëri gars yi ñoo gëm seen bopp di liggéey di entraîné. loolu la nag di yow ko tëral tey xam nga ñu wax li nii quoi di yàq suñu dara yi rafetul quoi. Mm-hmm. non dëgg la parce que jantal moom du maanaam si solin du question que ni yëkkati poids. du mm-hmm. question que ni ay sol naa daal bu rafet ay formes mm-hmm. jantal si xol la ak si xel. kon donc nañ utiliser suñu xel yi ak suñu xol yi pour mun a. pour mun a yàlla jëf jëf bu baax. jantal mentalité la. ayca petit général waaye peut-être dañuy rester rek ci touche boobu balaa ñi nga ñuy yëgati jotaay bi mu mel ni gis nga sortie yi nga xamante ne Tapha Mbeur defoon na ko ak ki xamante ne moom mooy Ama wax ci woo bi nga xamante ne woowoon nañ ko ñenn ñi nga xamante ne sax seen ay mag lañ ci làmb muy ténor yi euh, palais ginnaaw bi nga xamante ne jóge nañ fa ba amal conférence de presse mu ne coow li bëri na euh, tey ñu bëri yaakaar naa ne sax am na duñ leen dencal ci mer waaw man may dégg coono rek ñoom Balla Gaye Modou Lo yooyu noonu xam nga te ñoom gars yi tey loolu lépp lu am si làmb rek jeunesse bee tax. te tey gars bu ñu la topp na làmb ku amul coow topp ñu la duñ la fay ay millions. kon tey bu ñu bu la jeunesse bi gungee tey ba nga toll fii nga toll si làmb. am lii nii tey jii nii da nga xool fu jeunesse bi far na far foofu moom. Mhm. mais bu ma tax a dellu ginnaaw. Mhm. mooy loolu suñu président la bu waa di ko ñaan waaw fii ba su jàmm rek moom la. Mhm. bu ñu ñàkkee jàmm moom la ndax mooy mooy mooy lii bi ko mooy ñibbi. dëgg la waaw mooy bu baax. Mhm. mooy loolu kilifa diine la ñun ñu mhm. ku jiite réew lu baax moom la. lu dëgg waaw man fu may ñëwee rek parce que internet bi moo ngi réagir di ma naan DJ Alpha laajal ma suñu mbër bii nii pourquoi pas ñoom suñu amee combat. ba ne mbër bii day bëri kenn nu am jàmm parce que di nga gis ñen ñu ci mel comme yoonu stade bi ñen cantine yi dañuy teel a surtout surtout alpha ñi jógee côté bi banika benn baraak montagne bi parce que manam képp ki nga xamanteni jaay kat la ak képp ki nga xamanteni ni na bëgg a wàcc xelam du dal parce que dañuy naan mbeur bi super terrain mi mhm. ñen ñu muy andal dañuy simol pourquoi dañuy simol lan motax ak insécurité bi mais dama xamul benn affaire quoi gis nga mbër ñun ànd ñoo ñu bon. Mhm. mbër yëpp la nag kenn ànd seen ñu bon. mais képp tax tey lépp mbalu mbooloo. Mhm. moo demee noonu. tey Sonko gi yaa ngi bu sax am ñu ko topp ñoo xam ne toppee ñu ko. pour mhm. Sonko ñu ngi topp pour seen bopp. te tamit mbër tamit noonu la demee. wàllum mbooloo wàllum dajale. moo demee noonu quoi. isa yi da ngay gis sama sama booy kenn isa yi gis may génn booy ñeen di jël. xamuma leen. mën nañoo ñëw pour sàkk tool mbër bi. wala lenn wàllum mbooloo daal moo demee noonu. waaw pour ñu xamee ko noonu ko waaw mais mbëri ànd ñoo ngi bon ànd ñoo ngi sàcc man ñi ma àndal ñëppay liggéey moo tax bu gis ba ma ñëw ni ànduma kenn mm. sama bu yëpp na dem liggéey ñi may àndal mm. waaw te ku bëgg dara tamit gaan doo sàcc ku bëgg teral say waajur doo parce que man du ma contre mbër bi carrément sax parce que xam naa ne mbër bi mënul xam supporter am yëpp mm. mais ñu su mel ni si ginnaawam comme entourage bi ak ñenn ñi nga xamante ni jege nañ ko mais pour pourquoi pas mënuñu gën a soññ seen supporters yi ba telle sorte que kan, ni di ngeen trouver terrain d'entente balaa ngeen di dem stade ñu du jëf ju ñu mel. waaw ñun suñ sa force club avant la am la ñuy réunion. waxtaan daf lepp tek lepp ci yoon mais amna na ñeneen ñeneen ñoo xam ñu ngi ñëw pour supporter ci xawma la am na ñoo xam xamna am ñoo xam xawma la wala ñeneen di ñëw indal seen xarit mo lool ñeneen tamit dañu ñëw romb taxaw fi ni pour xaar mbër génn. ñu def li ñuy def seen def ci ñaaw quoi. Mhm. mais rafetlu ñu ko tamit quoi. ndax mën muy génn ngay sàcc gaa maanaam sa tey ji mën nga kaa yaakaar mën ngaa sàcc yëpp mhm. tey koo xam ne yaa ngi leen yàlla daanu loolu topp ko mhm. mooy loolu ci bàyyi xel quoi mais ñun moom loolu rafetlu ñu ko quoi ayca petit général ak ay supporter am bokk nga ci mbër yi nga xamante ne mbër yi nekk ci diggante bi xale yi dañ leen di topp bu baax a baax euh, petit général bu jugee mbooloo moo koy topp ci mbër boo xamante ne comme li nga wax maanaam yàggoo ci làmb yàgg nga cee yàgg nga cee sonn mais bi nga duggee ci bëre yàggul lan mooy secret boobu sa diggante ak ay say supporter waaw tamit man làmb dafa naa sa baxaat yi mhm. bi laa ma bàyyi làmb ndax làmb dafa metti préparation bi ak affaire yooyu noonu. dëgg ak wàllu musique bi instant yii da am moyen bi dafa metti xam nga mais booy tamit ma gis ñuy sonn si man di def lu nekk seen xaalis seen ñaar dërëm seen dërëm jox mm-hmm. comme ça ñu ni sonn si man tamit bëgguma tas seen yaakaar mm-hmm. mais bu loolu ma ne man doog bàyyi naa bëri. Mm-hmm. am naa sama liggéey maa ngi liggéey normal xam nga di sant waa Touba Gare yëpp mooy loolu mais booy tey ni ma toppee nii man maa tudd dina war na seen xel. tey dem na feneen si man tey soo àllaa lu ñu bëgg dinaa ko def ñu bëri daal waaw yasaa nag bëri moom moo daal ñoo ànd mais ñun yàlla ñun ñu ñaan yàlla yàlla mooy ñu ndam wala fu ñu teg suñu bët mooy si kaw roi de Saloum incha allah incha allah Adja lan lañ mën a xaar sa digganteeg Ndiaga Or ak mu siflee dangay dox ci kawam fu taxaw nga fekk ko fa déglu dangay xeex wala dangay taxaw xaar non man moom yàlla xam ne ni mënumaa taxaw sax su ma taxawee rek booyee ma ko digal te su ma taxawee tuuti doxul sax damay def man mënumaa taxaw. man fu mu ne nga fekk ko fa. waaw man mooy loolu quoi attaquant laa. mais pour jël la am ñaata minute nga wax ak say supporters. non loolu moom ça dépend rek. Hmm. combat bi laaj rek. Hmm. dañ koy def histoire dina yàgg wala du yàgg. non combat bi na bañ a yàgg. waaw combat boobu yàgg ñaari béykat la waaw bu dee bu dee lu wax dëggal na ko. Hmm. incha allah combat bi du yàgg. ayca moo ngi noonu yal na la yàlla may ndam kon. ayca euh, petit général amoon nañ mbégte lool ak contentement dalal la fii tey si plateau bi mm-hmm. dañ lay bàyyi nga xam gërëm ñi nga xamante ne ñu ngi ciy jàpp ndax bis dafa metti comme ni nga ko waxee mbër dafa metti te am na ñoo xam ne ñooy sonn ci yow am na ñoo xam ne ñooy jël seen ñaar dërëm seen dërëm mm-hmm. ko def si yow mm-hmm. euh, di la jàppale nga gërëm ñi nga bëgg gërëm sant ñi nga bëgg a sant ñëpp. waaw di sant nga sama mbokk waare waare yëpp waa jàmm naa looyun waa Ross Béthio waa Ronk ñëpp. Mm-hmm. baax ma kenn sax mbokk wala waaye di si woo ñëpp waa Yëmbalee waa Géejawaay ak ñëpp mm-hmm. ñoom moo di ñoom Aliou loolu xam nga baax ma kenn daal ñoom Jamil mm-hmm. ñoom Maguette Lo sama mbokk wala waaye waaw waa ndax lépp ñoom la ko di sama toggukat yi ñoom baati bi xam nga ñoom benn ba ceebi sali <laughs> waaw mooy ñoom sali maa leen di bu baax waa di woo Bamba si combat bi ne si ñëw jàpp bu baax a baax Bamba borom asegnaa borom Malika maa ngi koy woo bu baax a baax ñëw jàpp si làmb yi ku si woo waatu waa gaz ku si mel ne Badji maa ngi koy si làmb yi mu ñëw jàpp si ku si mel ne Dem maa ngi koy woo mu ñëw jàpp si ñoom bu baax a baax waatu waa mm-hmm. bu baax a baax di mm-hmm. ma gis si xaalis baax a baax mm-hmm. baa ma kenn tubaab gaz ñoom ñamari waa Citra mm-hmm. waa centre commercial yooyu ñëpp maa ngi bëggee waa képp kuy Touba gaar ñoom Fadel mm-hmm. ñoom Modou ñoom ñëpp bëggee naa leen bu baax a baax mm-hmm. di si woo waa Malika di sant kër gi ma nekk tamit fu ma préparé sama combat nii ku si ma la boobu ba léegi làmb ji lépp lu lépp lu war si làmb ji mu ngi koy def maa ngi koy ma dara ak waa këram di woo tamit magam bi ami waaw moom nee na moom gaan la samay noo ko jël sa ah. waaw <laughs> <laughs> si jàpp quoi pas de nag këram moom waaw mention spéciale quoi. di nuyu ko si mel ne Papis Mansour mooy loolu. waa Touba Gaz yëpp daal ñoom naar ñoom Seex ñoom Moussa baax ma kenn Touba Gaz su ma limee rek damay jëm quoi. sama écurie waaw. ñu la dimbali si entraînement yi say coach ñooñu dinañ la mere de. yow ñooñu nga waroon njëkkee. ak sa ah sa waaw di nuyu waa Malick yëpp tamit sama waa écurie ku si mel ne Mbel sama su maa ngi koy nuyu bu baax a baax day sonn si man ku si mel ne Bamba. ñoom Unca. Mhm. ñoom Boy Malika ñu ngi ma teg lu métti ñoom Kër Góob. bilaa lu métti la ma teg si combat bi te lu ma teg nii si kàttan yàlla suñu borom ndam la. incha allah incha allah di nuyu waa équipe bi yëpp baax ma kenn di ñaanal ñu ñoom combat yi fi di ba. na yàlla may ndam ñoom mos a gaay gaay waaw ña nga Europe moom gaañ ma nga waxee ah. a ko déggandoo ak nga génn rek ki nga xamante ne moom mooy petit général ndax moom nee na pare na te day dox sa xamante ne saa su nekk rek moom a amal suñu ay plateau muy Viola Solution koy waxee saa su nekk Viola Solution kenn dootu ko présenté ci mim réew ak ay produit yi nga xamante ne naturel fait à base de plante amul benn effet secondaire muy produit yoo xamante ne fii rek nga ko mën a amee di wax rek tamit ne saa su nekk rek pour plus de détails si ay produits yi nga xamante ne bio la solution da leen koy jox dem leen ci compte def gis la solution bio macha allah lépp ngi fa produit yi nga xamante ne am na impuissance sexuelle am na produit góore am na produit hémorroïde am na produit ndoxum siti karaw waaye tamit am na produit nee naa bi nga xamante ne moom mooy la gamme super jongoma ayca may mbër mu sànniwaat ñaari kàddu rek aja Wah di hmm. si woo Ibra. Mm-hmm. Ibra di ko woo Ibra lamb yi sa lamb la bah bah, jàpp bu baax a baax. Ibra mu jàppale jeunesse bi. xam naa Ibra di wax Ibra bah bah bah, jàpp bu baax a baax a baax. mooy loolu. waaw borom ay numaar ya. borom ay numaar yi mais jagoro moom nee na moom yaa Omar Ndiaye. jagoro ne day pàccal lëngam dëbb kaani xaw ma. bu bés baax du pàccal dara. du pàccal. yow looy def yow. du pàccal dara. Misbah dëgg dëgg wax. Mm-hmm. nee na nee na sax si wax. Ah. naa def tànk bu ñu ma la ko passant bi. mu tëdd mu tëddee ma mu tëddee. <laughs> jaaxal ma rocc ngi di jaga Europe noonu ak Biola solution ñu wéyal rek tey nag dañ leen tegal produit bi nga xamante ne moom mooy Biola solution hémorroïde nee naa la kenn dootu ko présenté ci mim réew yow mi nga xamante ne yow la hémorroïde euh, sonal hémorroïde nag euh, Dj Alpha comme ni ñu koy waxee mu nekk feebar boo xamante ne yaakaar naa ne sonal nañu toogaay bu yàgg bokk na suñu mbokku tailleur ak période bi nga xamante ne moom lañ toll muy période tabaski toogaay yi dafay yàgg ci machine yi ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy chauffeur yi waaw ne c'est naturel fait à base de plante amul benn effet secondaire macha na ñëw jël si na ñëw jël si yi leen ñëw leen jël seen produit Viola Solution hémorroïde bi nga xamante ne alpha en 5 jours nga commencé gis les résultats. nee naa la hémorroïde mu nekk interne ou externe Nous mhm. avons ak bisi biti non seulement que da koy mais nous avons définitivement ak hémorroïde muy produit boo plantes. quest ay plante nous avons ko amul Ben effet secondaire bio la solution nga ko mën Nous sommes ñu Malika terminus 75 numéro bi 78 594 77 51 78 594 77 51 Ouais. Alpha nous nous sëñ Aliou Ngom bu baax nee naa la borom baatin bi nga xamante ne moom moo gën ci ñun waaye itam ne rek ñoom ñoo bëgg a fësal seen ay produit comme ni ñu koy waxee saa su ne képp koo xamante si waa Africa News TV ci seen matinal bi nga xamante ne dañ koy amal muy Eco Africa pour plus de visibilité macha allah su ngeen ñëwee doo leen ko réccu Alpha ñu bàyyi la. ayca mu ngi noonu comme nu ko sista Diarra waxee rek képp ki nga xamante ni bëgg nga fësal sa jaay bëgg nga fësal si lépp li nga xamante ni bi yaa ngi si yëngu woote leen si numéro yooyu nga xamante ni mooy daw si suufu baaru écran bi ñu fësal seen i jaay ngeen am plus de visibilité fii lay amee si Africa 9 TV seen émission matinale Eco Africa. ayca nga tàggoo. ayca su ko defee damay mbokku internetu Africa 9 TV yu doon seetaan seen émission matinale Eco Africa di bëggee ñi nga xamante ni ñoom laa bokkaloon plateau bi di mm-hmm. Sista Diarra ki nga xamante ni moo di invité. petit général di gërëm ki nga xamante ni moo nekkoon si ginnaaw moo di Sélé tarkalla macha allah suñu menee ni di belli si écran bi ngeen di mhm. kontaan toog seen biir salon bi ñu seetaan moom la kon donc nag restez scotchés sur nos programmes à chaque fois nii lay demee fils Africa 9 TV. incha mbokk yi mi ngi noonu ñuy gërëm petit général comme ni ma koy waxee ki nga xam ne moom laay feggool la kooku mooy l'international kenn dootu ko présenté ci mim réew macha allah ay ca mbokk yi su ko defee ñu joxante rendez suba ci benneen matinal ak Eco Africa di wax rek ne wéy leen topp suñu ay programme ci Africa 9 TV su ko defee rek dara du leen ci ci réew mi waaye mbokk yi balaa ñuy tëj rek ma souhaiter très bon anniversaire ki nga xamante moom mooy sama jabar ma koy woowee Kumba ma depuis